ayca jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñu topp ci Dakar live ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar tey nag comme ni ñu koy waxee rek bisu naqar la wax dëgg neex yàlla ndax ki fi bàyyeekoo icône la ah ci ci danse fii ci diwaanu Sénégal ñu koy jaale ay mbokkam moom Aziz Dabala ñu toog ak koo xam ne ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay frère la dama koy nuyu bu ko defee ma jaale ko bàyyi koog internet yi ziar naa maa ngi lay delloo ziar man frère Aziz Dabala la Modou Ba euh, ñoo bokk moom moo topp ci man man maa nàmp jox ko Aziz nag nekk suñu frère nekk frère bu baax nekk frère bu gën nekk frère boo xamante ne xanaa kay lii lañuy jooy mooy cat bi nga xamante ni tey moom moo nekk nii ci ñun waaye nit ci kaw àdduna gënu ko nit ku bëgg ay waajuram nit ku bëgg ay mbokkam nit ku fonk ay nawleem koñ bi fii boo ko doon wër bu ñëwee fii du dugg oto du dugg dara mën naa doxee but ba but te fu mu romb day taxaw billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa fu mu romb dafay taxaw xale bu ndaw mun na koo tàddaloo ci mbedd bi xale bu ndaw mën na koo taxawloo ci mbedd bi nit ku bañ kuy suufeel nit nit ku bañ kuy humilier nit bu ñu jote woon maag yow du xool lu ñu jote de day xool ki nga xamante ne moom la dooleem néew rek mu ànd ak yow moom nit boobu la nit ku fragile ñun nag ñàkk nañ waaye gëm nañ ne Sénégal moom moo gën a ñàkk waaw ndax drapeau Sénégal la yoroon ndax lii mu nekkoo woon muy culture di fecc loolu yóbbu woon ko ci partout dans le monde loolu moom Sénégal la ñàkkal kon loolu nag nekk na lu metti metti metti nañu trop waaye nag lu jaam lu ko yàlla teg da koy nangu waaw ba tax na nag ñun ñoo ngi nangu ndogal bi dox dal ci ñu kaw waaye nag métti na trop métti na trop métti na trop. wax nga ko léegi Aziz Sarak la mu nekk Sarak boo xam ne ku la jege la vraiment sa relation ak moom euh, naka ngeen doon dundee ak famille bi. Euh, relation bu rafet relation boo xamante ni moom la képp koo xamante ne mbokk wala mag ak rak wala doom ak ay waajurum du dundee rek loolu ñuy dundee mosu ñoo sonal ci dara. billaahi wallaahi tallaahi mosu ñoo sonal ci dara. musul sonal suma yaay musul sonal suma papa ba ni mu génne àdduna musul ñoo sonal ñun ñii man mii comme li xew ci famille yëpp problème bu amee suñu kër nii moom mu toog ci noppam man mi lay woo daf ma yeb dafa naa ma njàkk lan ma xew foofu su ma ko expliqué du xool sax explication ma ko jox li raison bi de mu day xool fu mu gën a suufee rek ñooñu lay faral dëfal waaye mukk mukk mu bokk ci problème bi nit bu baax la nit bu baax boo xamante ne doomoo woon mu jëloon mère mère nag defal ko foofu ci salle bi rek pour mu pour du ko fa. massa massa mbokki mbokk du suñu mbégte ah ñu interviewé nit mu jooy du suñu mbégte waaye da di Aziz Dabala kenn la woon ci Sénégal dafay rafet ñu jot ay témoignages mbokk yi. ñu daal di def ay kàdduy seede ndax nag koo xam ne euh, yaakaar naa ni soutien de famille la woon ñu rey ko rey bu ñaaw bile dafay rafet ñu dem seeti mbokk yi ñu def quelques témoignages ndax yaakaar naa ni jamono ji malaaka yi teew témoignages yi rek la ñuy déglu rawatina ñi nga xam ne ñoom la bokkal deret Moodu euh, tey état bi fi nekk di état bu bees yéen ay mbokkam ngeen am ngeen yaakaar ci ñoom hmm? lan lan ngay wax état bi nga xam ne moo fi nekk parce que Aziz def na benn vidéo doon wax ci benn rey bu amoon fii wax ni ku rey dañ ko war a rey kàddu doom yooyu yaakaar naa ni matul semaine ñu daal di koy faat. dañuy wax rek que ce justice soit fait loolu moo nekk li nga xamante ni moom la ñuy wax ñun ñëpp ndax yoon daf ci war a def liggéeyam ndax bakkan dafa fort Aziz moomu ñu ngi doon xaar ci moom mu am njaboot gën a yokk xeetu yonent bi tey lii am duñ la téye dañ lay bàyyi parce que si naqar nga nekk dañ lay bàyyi rek nga lancer message état bu Sénégal ngir mu gën ci def liggéey ndax wax dëgg yàlla yaakaar naa ni ñaan bi ngir mu gaaw ci yéen la war a gën a gaawee état bi lan ngeen di xaar ci ñoom. bi ñuy xaar ci ñoom rek moo ñu def seen liggéey rek parce que lii mu ngi jéggi doyo ndax rey yi bëri na même bu nekkul Aziz rek ëllëg moo tax rey yi bëri na bu baag léegi ci diggante yu gàtt rey na nit rey na nit rey na nit loolu jekkul ci image Sénégal jekkul ci deru Sénégal Sénégal kenn xamee ko loolu fii jàmm la xame xamee effet rey yi moom kenn mësuñu ko xamee Sénégal moom mun na wax waaye nag rey moom rey moom autre chose la surtout ma reyoo benn bakkan mais ñaari bakkan ñaari bakkan nga rey leen nii sans gêne nañu ñax na justice na justice jóg ci lii. ana yi fan la nekk hôpital wala. waaw démb na ñun bañ leen di yóbbu dalal jàmm la ñu yóbbuwoon waaye actuellement nii dañ leen yóbbu yóbbu Rouen Baudouin pour def autopsie yi waaw loolu lañ def waaw. yàlla leeral amiin jërëjëf. yàlla jéggal jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. am nga fooy toll li nekk ci xol bi faamu génn boobu ba tey mi ngi dëgër mais am na fooy toll day day day métti ndax sa frère. boo xam ne yéen a ngi doon déggante ci jaamu di waxtaan di kaf di ree ñu jékki-jékki rek ne la euh, sawaay kat génn na àdduna nga ne déedéet ñu ne la dañ ko rey euh, xiifaat ko ci anam bu ñaaw ndeysaan mm, dëkkandoo yi ak mbokk yi ñu ngi koy ñu ngi dalal euh, rek xel mi ñëwaat naa ko su ko defee ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan lii dafa dafa metti dafa metti dafa metti dafa metti parce que amaana lii yëpp jël ko teg ko ci kaw njabootu jàmbur tiis bu métti gi euh, dina jooy parce que yow sama nekkoon soutien de famille ndimbalu kër gi ndimbalu koñ bi kenn mësu ko xam ci lu bon aaram la nekkoon def di béy waaram doonoon acteur culturel ngeen xëy rek faat ko ci anam yu dëgg jéggi jaww dem seen yoon loolu moom neexul benn yoon waaye yal na yàlla nit lépp su ko defee rek ñu xam ñen ñoo def jëf def gu ñaaw gi waaye nee naa leen tamit xam naa ne du yàgg dara dañ koy jullee ndax defar nañ sàppe gi eh, ñu jullee ki nga xam ne mooy Aziz eh, buñ ko jullee nag xam naa ndeysaan dañ koy yóbbu ci këram gu mujj eh, fi nga xam ne moom la ñun ñëpp di dem waaye yàlla na yéex ndax nee naa la bakkan bu ñam dund di nga ñam dee eh, te ki nga xam ne mooy oustaz bi wax na ko léegi waaye amaana niñ ko déggee ak niñ ko defee moo ñaaw ba tax na ñoom si famille bi ñu ngi ñaan rek yoon def liggéeyam su ko defee ñu xam ana na ñoo def ñaawteef bu mel ni seen doom ko xam ne ndimbalu kër gi la woon ndimbalu njaboot bi la woon nee naa la eh, Sénégal fu mu ne nii kenn xamatul kan mooy kan ndax insécurité bi nekk ci réew mi waaye da ngay xëy un bon jour rek ana diw ñu ne la diw dee na lu ko rey déedéet fee warul dañ ko rey ndax lan alalu àdduna loolu yëpp ñu war ko xoolaat xam ndax gis nga àdduna bii nii bu fekkee ne ñu ngi julli jullee nañ ko ba pare ndeysaan son frère oh c'est triste ndeysaan euh, oh, oh, oh, ñu ngi doon di ko yóbbu ci këram bu mujj Tarba Mbaye ngi noonu euh, Tarba Mbaye mooy mooy dem noonu ndeysaan ñu ngi doon di yóbbu Aziz ci këram gu mujj mbokk yaa ngi doon di dem oto Tarba yaa baa ngi doon daa mel ni def na bu oto yi feesee ñu jaar ni dox daa mel ni sëgg yi soriwul kon arrière soriwul ci koñ bi alaaji duudu ñun nañ dox jiitu leen fa ndax daa mel ni soriwul nañu nañu nañu dem dox nañu dox dem ndeysaan métti na metti na lool lool lool lool na